junga wolof nataal la nataal yu xóot a xóot naan naan misaal wax théâtre wala wax pièce de théâtre té duñu lim pièce de théâtre bi nga xamné mom ans après je continue de marquer les esprits 20 ans après loolu mi d'actualité bien que moment koy joué moment ñu turam ba mu joué théâtre muy Italien Ibra Italien ngeen ko gëj ngeen pour ans après la li théâtre mu joué esprit acteurs sénégalais yëpp ak lan mooy projet am ak fu mu toll ci théâtre Ibra Italien ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay euh, di nuyu waa Pikini production yépp di nuyu tous les techniciens ak l' ensemble des techniciens du Sénégal. yaay na nañ la. oui euh, man maa leen gën a nam maa leen raw foofu ñoom ñëpp mais joxoon naa leen rendez-vous parce que newoon naa leen euh, na ngeen continuer suivre ci kanam parce que samay affaire boo ma séentoo nord maa nga sud xaw ma nag fu may sóor man mais wóor na ma ne fi may génn dina bettaat encore ñëpp. wax naa sa tour mu nekk euh, tour boo xam ne ñu bëri xamuñu la xamuñu la ci tour boobu boo koy laajte ci théâtre doo gaaw feeñ soo ne kuy moog jee moom xam naa ne doo gaaw feeñ Ibra italien bi dem na ba nga xam ne moom muy sa tour te turu rôle kese la woon. way euh, xam nga léeg-léeg tour day topp nit lu film surtout film day topp nit wala histoire am wala dara nit day def lu marquant loo xam ne dañuy mujj sax fàtte turam.

casting bi na succès bi célébrité bi lim le mës a apporter tey 20 ans après Il y ban analyse ngay def parce que analyse moment bobu ak analyse 20 ans après il y a des hmm oui ça peut avoir une différence parce que le temps avance les choses changent mais euh, succès chez nous les artistes peut-être que nous ñooy gis succès ñooy gis yoyu mais artiste bi en général du dund lolu parce que chaque fois bo paré ci ben yaa ngi dundaat beneen léeg sax nit ñi dañ lay laaj ci lo xamné dafa passé bon peut-être euh, ñom ñu ngi doora sétane wala yoy mais en général day fekk artiste bi ci benen benen épreuve encore moo souvent ñun dañuy passer vite les choses nit ñi nak ñoo fay rester parce que c'est c'est des faits marquants quand même parce que Ibra Italien a marqué l'histoire sénégalaise l'histoire théâtre sénégalais vraiment euh, dafa marqué mhm. bon ni mu aussi parce que boo xoolee théâtre demoon nañ ba période yooyu vers les années 96-97, presque góor ñi seetaanatuñ ko woon on se disait toujours ne théâtre yi fu jigéen la théâtre da ngay mais c'est un film qui a révolutionné l'histoire du Sénégal parce que Ibra italien bi muy génn boobu théâtre demeetul woon noonu seetaanatuñ ko bu baax d'ailleurs les mardis la daan faral di am c'est même mardi boo boo daan doxaani excusez-moi du terme euh, do dem doxaani mardi parce que mardi bo demé da ngay fekk du la tal voilà télé bi lay tal bon donc lolo amone. mais film boobu bi mu ñëwee dafa dougalat ay générations et des générations peut-être de jeunes qui aimaient le théâtre et qui avaient peur ou bien parce par complexe yi ñu ci doon wax ak da daawuñ ci dugg mais film boobu dafa ñëw révolutionner le théâtre sénégalais euh, attirer encore le public sénégalais à la télé Vraiment, c'est un film qui a créé beaucoup d'histoires euh, théâtrales au Sénégal. Euh, casting bi n'importe la parce que des fois da ngay gis euh, film yoo xam dafa war a am casting ki ko du moment leen copté pour me jouer ko wala yow dès le début da nga def casting bi rek ñu ne yow yaa ko jouer. et puis aussi scénario bi naka la y la demee qui ci waxtaan en groupe wala ki dans le scénario yi moo ko joxe. oui vous savez scénario bi ni mu parce que temps yooyu dañ toog ba ci yàgg Cheikh Tidiane Diop jëm si yàlla yal na ko yàlla yërëm te yéexinu euh, xare ko àjjana dañ toog ba mu yàgg mu ñëw ne ma mu ñun ñëpp la ko wax sax ne il faut ngeen euh, commencer di discuter di waxtaan di jouer ay pièces yoo xam ne ça va porter sur les venant d'Europe venant d'Italie et cetera bon ci lañ xalaat euh, ñëpp nag di indi seen idée c'est Ibra Italien c'est un tout petit peu l'idée de tout le monde ah ñëpp a indi seen idée Daare Kocc travail comme ça après autour de cette idée nous jël ko toj ko ku nekk génne xalaatam etc mais c'était un peu difficile quelque part parce que Cheikh Diane Diop avait un problème mooy kan moo koy jouer le rôle c'était vraiment un problème période yooyu aussi laay doog a ñëw euh, Daaray coach son première année à Daaray coachs vraiment joué ngay soga mais bobu fekk na bon jaar na école des arts jaar sama trajectoire école cycle école des arts yeb jaar conservatoire bu Dakar bu Sénégal def conservatoire bu Paris à l'école Meyerson def euh, def na beaucoup de choses avant may ñew euh, jamono tay en 80 Là, dem jamono tay j'étais très jeune vraiment j'étais le plus jeune euh, artiste le Benjamin ça, lañ ma doon wowe bon des defnaf 10 ans environ jamono tay doro j'ai jamono en 90 91 ci la dem daray coach euh, jusqu'en 95 96 bon j'ai don dem di ñew rek daaw ma sa tok lu bari mais enfin période bobu la ma agrippé alors je suis resté totalement à daray coach et suis avec deux ans après en 98 ci le cheikh tidiane diop génné won ce mot d'ordre nous réfléchir jusqu'en 99 Si nous trouvé un consensus effectivement on doit jouer sur les venants d'Europe etc. bon c'est un rôle aussi qui a été choisi choisi, mais vous savez souvent il y a des risques au casting c'est des risques et il voulait pas se tromper qui connaît Cheikh Tidiane Diop il n'aime pas se tromper du tout mais en collaboration avec la RTS c'était un peu facile bon mu choisir ma pour faire ce rôle mais am na ñeneen ñu mu njëkkoon a choisir mais ñooñu aussi dañu gis ne comme rôle boobu dafa am affaire truand alors peut-être ils veulent pas se porter le chapeau se faire porter le chapeau bon ils ont préféré dire à Cheikh Tidiane Diop non je pourrais pas faire bon deux deux deux deux personnages jël na ko foofu mais ñu bañ ndax dañuy bañ mu toppale. waaw waay ñu bañ kenn kii dafa xaw a sëriñi tuuti mhm. sama xarit la mhm. bon du mën a mhm. bon Cheikh doumbé aussi parce que moi je cache pas mes sentiments en général je dis ce que je pense et la réalité quoi bon Cheikh doumbé aussi avait vu que bon rôle triant la bon de ko mais c'est parce que un scénario c'est une histoire qu'il faut beaucoup lire qu'il faut beaucoup apprendre apprendre l'histoire pas simplement la forme bi mais le fond de l'histoire quand j'ai su le fond ci laa dit mais écoutez ni euh, ils n'ont pas peut-être compris quelque chose alors je me suis euh, ci laa l'engagement. engagement ni Cheikh Tidiane Diop ok je vais faire le la ma scénario bi ma dem répété ko six mois six mois jour pour jour je ngi scénario bi gudde ak scénario six mois après la RTS woote vraiment, vraiment Ils ont parlé. parce que c'est un produit de la RTS ñoom pare nañu ñu woote ñu bon ils m'ont vu quand ils m'ont vu pour la première fois dañ dit non bon qui du ko qui il est innocent qui tout couleur bi qui du def quoi bon y en a qui me connaissent euh, là-bas parce que j'ai joué à Sorano le rôle de euh, Kumba Kandiande le grand guerrier tout couleur de Bilbassi Nous, ñoo ma mais nous, ñoo ne non kii euh, kii dina ko def mais d'autres ont dit non qui il est innocent effectivement man ku timide là bariwuma ay jalt jalt daal dama timide trop dama complexé. ce qui était plus compliqué euh, c'était la danse parce que euh, y a une manifestation war naa organiser fête war naa fa fête. bon léegi fecc bi may bu quand même. gars yi dem leen seetaanaat en italien. <laughs> vous savez fecc bi. Euh, il fallait pas danser comme un, un vrai Dakarois, un vrai Sénégalais, parce qu'il fallait danser tout bas, voilà justement. Alors, euh, heureusement, on a demandé Mathieu. Bon, me répéter quoi, travailler quoi chez moi, bon, après, il len ko. Jusqu'au jour du tournage, ci fête bi mon réalisateur bi Cheikh Salibou Gueye ndeysane. mais fait fait fecc fecc sénégalais, ma ne Sénégalais, moi je danse même mal, je danse mal, je ne sais pas. Bon, on l'a ko mhm. Bon, après ñu a affaire bi commencé, mais c'est ma première action ci danse il ça que que la danse bi amna parce que ça a fait marrer tout le monde hein. donc donc nous a pas ci qui dafa naturel hein. naturel <laughs> naturel bon c'est ci contretemps la parce que je ne voulais pas mettre la danse le tempo normal bi bon mettre le tempo danse bi bureau, je vais faire le contraire ce qui fait ce que les gens n'ont pas saisi. Il y a même des organisations des manifestations qui euh, ont concours concordance italien mais j'ai jamais vu quelqu'un qui l'a réussi jusqu'à présent. D'accord. Euh, italien après nga tourné mu mu def succès succès bu succès bu rëy góor ak jigéen mag ak ndaw ñëpp ko seetaan ñëpp di wax di waxtaanee li nga xam ne mooy Ibra Italien parce que ñu fàttali ni temps boobu noonu loolu dafa amoon mooy immigré yi dañuy ñëw xale yi góor yi ne dañuy ñëw takk seen seen gel yi ñu fi am affaire yi demee noonu te trompeur yi bëri na ci biir te temps boobu immigré dafa xewoon alors succès bi moment boobu noonu bi mu génnee succès bi mu am na xaar xaaroon ngeen ko. oui bien sûr xam nga nit buy entraîner pour benn compétition dina dem ba xamné mom amna am affronter ki bi épreuve bi bon après la suite euh, ngay xol mais quand la suite est venue ci ngay xamné yow tu as beaucoup travaillé pour avoir ça parce que du ay caaxaan euh, du ay ñëw rek wo kenn ñaar ñett ñu tok nga wut ben caméra ngénte ki mu ñëw rek après ñu ne ki moy papa ji ki moy yaay ji waxal li waxal li ça ça ça ne rime rien c'est ce que nous voyons actuellement ci bir ki bi loolu dinañ ci del ci kanam touti. Mais euh, ce qui est sûr est que euh, c'est un film qui a touché toutes les couches. parce que l'al na xale yu ci ni ñuy teeroo muudu muudu yi ak nax yi ñu leen di tegal laal na aussi muudu muudu yi nga xam ne ñooy jóge fee ñoom ni ñuy préparé woo pour ñu nax suñu jigéen ni fii laal na aussi paa yi nga xam ne ñoo ne ci jàkk ji euh, yore keesu jàkk yi parce que keesu jàkk aussi du saay la neexee rek dañ ne néegu yàlla du saay la neexee rek nga am si soxla dal di ko ci fajj bon laal na aussi borom natt yi maire yi yore comme ñom seun donc ça a touché presque toutes les couches alors ça aussi c'est une richesse du film quoi mhm. mais. Euh, bi bi bi mu guéné def succès ñi bañon ñi bañon def rôle bi ñu eh, suñu xamone def quoi <laughs> il n'osait pas le faire parce que il n'avait pas compris une chose c'est-à-dire il n'avait pas compris ce qui est derrière ce scénario-là. Parce qu'il y a toujours, euh, devant le miroir, il y a quelque chose. Mais derrière le miroir se passe encore quelque chose. C'est ce qui n'ont pas... Euh, si vous connaissez bien la rusée de Cheikh Tidjane Diop, il est tellement intelligent que mom toujours derrière le miroir. Il a vu que derrière cette personne se cache encore beaucoup de choses. Bon, ça, c'est par expérience, parce que Bimounier Dare Cheikh Tidjane Diop, de photographe artiste, ne écoutez, Mor Dieng ñëwul fii daaray Kocc pour jàng mais dafa ñëw daaray Kocc pour tari et si on reste avec lui dina yëkkati daaray Kocc loolu Cheikh Tidiane Diop wax na ko un bien avant le film di di génn donc euh, euh, noonu la demee. Euh, bi nga xamee ni génn na am na succès yow sa succès moment boobu noonu nan nga ko dundee moment boobu succès bi succès bi mu amoon ak lan la la Ibra Italien apportel d'abord dama mhm. prévoir on naa ça fera quelque chose mais fi mu mujj yegg daf ma dépasser après parce que euh, dem ba pour ma guen c'est tout à fait un problème il faut nga def yéré nar solo mel fawu euh, def turban pour nga meuna circuler sinon doo circuler bon dal nañu plusieurs fois dem naa fi sama ngénte sœur euh, bi wa koñ bi génne Ibrahima mu ci ngénte li bon miiru kër gi lañ danel bon il ci mur bi ba kër gi ngénte li il fallait l'intervention de la police pour que ngénte li normal tombé aussi quelques jours après may ngenté mais sama ngenté bobu dama muju yakam ti ngenteli tas parce que xamatuma won nan lay def il était question de dama tiit ba may wo police ma dem wo sapeur alors bi sapeur yi ñëwee gis débordement bi ak ñi ne ci kaw balcon yi ni ñu feese ces balcons là pouvaient tomber de moi l'autre vous savez yooyu ñoom ñoom ñoo mujj sax woo police affaire yooyu lii moom moo ma génne ci ngénte loolu donc succès euh, dinañ koy ñaan mais souvent aussi dina yegg see noo xam ne mun na la mun na la dépasser mais heureusement que musuma yëg succès bi musuma dund maanaam succès nekk ci kaw tuuti man musum man je suis talibé je vis talibé pourtant on dirait pas nag parce que bi mu génnee nee dafa mën rôle bi parce que dafa nuru ko bëri tiitar <laughs> Ouais mais oui dama bari tiitar oui oui oui oui ku bari tiitar là vraiment bon bari tiitar ben gerte la rek bu nit di dund en soi en soi même bon di ko incarner en soi même di ko dund day yomb mhm, day yomb <laughs> mais lan la lan la la apportel Ibra Italien lan la la apportel parce que nit ki boy liggéey aussi beug nga dara lan la la apportel ci sa carrière lan la la apportel ci li nga xam mom moy côté financier lan la la Ibra Italien

tu prends taxi par exemple taxi bi yobul la fi nga ngay lamb di ki naan ko ñaata la mu ne la noo sawaar dal di ree ne la ana ndey xadi ana bay eli ana conteneur bi ndeysaan dal di ree ne la noo sawaar dem aw ma euh da ngay dem di rang par exemple Sénélec wala ailleurs pour payer quelque chose dal na ma ma dem euh, euh, je veux pas bugguma wax site ki bi ma dem di rang pour jënd ay produits mais ma ngi rang ki top sama ginnaaw bi ma ñëwee bëgg fay moo ma ne Ibra bàyyil ma fay ma tourné xool ko euh, muy bu bu bu ko koto koto le plus court de la de du sport euh, sénégalais en général mën wax ne ci koto koto bu ne non ça va je paye gis ko dama ne succès parce que na ma stade mais tey moo taxaw di fayal donc yu amul prix moi souvent quand on dit que est-ce que l'artiste se nourrit de son euh, l'art nourrit son homme mais vraiment fi ko nit ñi di xool ak fa mu effectivement euh, art nourrit son homme parce que li ma ci am bëri vraiment li ma ci am bëri ci ci samay mbokk jëriñu ci samay am di jàmm samay xarit tout autour de chez moi ñëpp jëriñu ci loolu rek dafa am solo. wax nga ñu tamit sànq ci sa parcours ni que jàngee nga fi nga xam ni moom mooy Paris. oui vous savez euh, étude moom fu ne nga koy ute te Sénégal dafa bëri ñu baax ma am nit boo xam ne euh, Astulo nekkoon Sorano dans les temps nekkoon aussi di def euh, script RTS vraiment moma ma xool mu ne ma je vais t'arranger quelque part ndax ding ko suivre après moma jox sax ki yoy bama dem jeli cours yoy en France euh, def euh, deux ans à l'école Meyerson de Paris bon après euh, à Nice à Bordeaux aussi def na fa ay études yu bëree avant de revenir au Sénégal pour compléter sama sama art mais toujours est-il que nit ñi dañ doon wax li nokoy bolé mais fofu damay wax ne rek dans le monde

parce que c'est très important. lan moo tax aussi ñu gëj la gis parce que gis nañ euh, production yu bëss yi yoy yoy légui mom ay film la mais lan moo tax gisuñu la si ndax jotu amul ñu la jot a approché wala. moi je vais vous dire que ils m'ont tous sollicité tous mais euh, toujours est-il que nit dafa am yo xamné ci nima ma jàngee métier bi jàngee ko théâtre ba pare plus moins fi ma jaar amatuma sañ sañu ñëw di def lo xamné ne du doomu amatuma sañ-sañ di di def day une société par exemple les mœurs man dama beaucoup xam nga dafa am yu ñu xam ay jom fayda bëgg nit nit nit fonk nit alors boko bëggé boko capitaliser c'est sénégalais qui est comme ça bon c'est anti sénégalais moi, par exemple euh, yenn yi ngay gis. ay rôle lan ay rôle lan lay proposer nga xamni li du sa rôle doo ko def. parce que buñ buñ ngay wax non la démé mais ben, bien sûr euh, parce que rôle góor jigéen du ma ko def. Mm-hmm. d'ailleurs dama dul bok sax ci film buy góor buy am góor jigéen parce que gor gor la ci xam jigéen jigéen la ci xam ki yuma len nak waaw ñu mën dund ak ñom ni parce que là où je suis né à Waagu dañu dënk dëkk ci ay kër yo xamni gor góor dafa dëkk ci kër gi

ñom non lañu mel. d'accord mais du rôle moy rôle mais du rôle yëpp moy rôle goor góor euh rôle goor gu bir par exemple goor du bir ñoñu ñoñu ban scénario ban ban concept <laughs> mo am ay goor bu bir ak rôle goor jigéen xana du série yu may sétane yi ni parce que amul lool. écoutez euh, joué nañ fii à Sorano goor gu bir di jafté di soccu di di yee kew di di kii ak d'ailleurs c'est mon grand Lamine Ndiaye mo mo jé rôle bobu ça c'est des rôles que moi je peux pas faire en tout cas. Bon, tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Mais moi, je ne fais jamais ça. Bon, y euh, a aussi rôle par exemple nga gis ni imam bi di ci ay wala nga am kuy c'est pas ça ay islam man yoy duma ko euh, j'ai eu des propositions je peux en parler une bo euh, ma pour un film film pourtant euh, euh, damay sa sama jabar ñu mais par moment damay génn waxtu julli fekk sama jabar tàmbali kàbbar na ba alors que damay ñëw suivre ko moom mu ma ci bon et par moment may ne un peu malade mu ne ma noonu nijaay kaay dal di may jiite ci julli gi donc loolu ni mu tuutee scénario mais c'est excessivement grave parce que aduna du yag yag ba jigen di jiite julli waxuma leneen de julli laa wax jiite mën jigen jigéen mën na leneen ak leneen jigen mën nek président de la république jigen mën nek lu nek ci aduna mën nek sax mais julli jigen du ko jiite. alors que ça c'est des choses que j'ai refusé te bu fekkone comme li may wax ni nan ma lan nga ci am mënoon naa ci am ay milliards et milliards ba tey parce que li ma lay wax amagul 6 mois biñ ma proposé rôle bobu malet lañ lay tegal mallette bu am doole proposer la loo xam ne lii mais loolu. sa image quoi doo ko bëgg a coller ak yenn non sa image. d' accord nan nga gisee li nga xam ni moom mooy série yi di jàll léegi série yi di jàll ak euh, osé bi gars yi osé bi xale jigéen ñi ni ñuy solo ak euh, ni ñuy waxee et tout nga xam ni seen temps yéen loolu amul woon. bien sûr mais amoon na c' est qu'on évite toujours parce que le théâtre est différent du cinéma fii actuellement dañu mélanger cinéma et théâtre loolu ça fait un défaut discutez vous mais ça fait un défaut euh, le théâtre et le cinéma diffèrent Le loo gis ci cinéma jàppal ne am parce que nous du le ci kaw un building daanu ci raay train bi mbëkk des nga génnee pistolet rey mille personnes ça c'est cinéma ça mais au théâtre loo ci gis rek soit à mon ba passé ou nous avons koy actuellement ou nous am à l'avenir donc, euh, c'est différent. Par rapport maintenant à ces genres de trucs comme euh, le, le, euh, le Marie Potechou, par exemple, dénouement, bon, c'est pas, pas bien pour notre population. par exemple, la maîtresse de nos mariés. ils mais man ni may concept bi damay nuire plutôt que day bah, souvent, c'est des scénarios pas riches. Hein? pas riches en sénégalais, quoi. Parce que bu fekkee ne nag télénovas ngay def koku comme liñ fi kaasoon kaas nañ fi télénovas nañ ko fi jëlee nangam nangam mais bu porte yu ubbeekoo dem nañ ba xamné lool mënuñ ko fee jëlee dañu muju ñom ñu soppalé ku nekk télénovas donc yi fi jaar yépp presque série télénovas la affaire tubaab la sol gatt génné fi touti affaire yoyu mel ben melokaan bi ak waxine bi yépp c'est pas sénégalais. Hein, ce n'est pas toujours une belle voiture une belle maison Ce n'est pas tout le monde qui vit ça le sénégalais donc fait koy c'est la monnaie. Ils nga dem ca euh, normal vie normale bi sénégalais de vivre alors tu mais ce fait qu'il lu a il faut luxe disant que les sponsors vont accepter ça parce qu'ils ils tirent vers le luxe alors en fin de compte ils ngay mujj que le théâtre fait top les sponsors pour mais ça ce n'est plus ça mais lu ben- ci lu ci melni maîtresse bu la woowee exemple nga bañ pot de mariage woo nga bañ mais est-ce que après gars yi duñ né da nga bëri préjugé motax euh, ñu lay gëj gis est-ce que duñ wax lool non parce que yow li nga jappé ni que ay rôle yo xamni yow waroo ko def peut-être parce que yeewul askan bi en dehors mën na yé askan wi parce que mi ngi leen di xamal. ah mais bien sûr parce que bu féké ne par exemple buñ ma woowoon ci mbétel on m'a pas appelé dans mbétel mais buñ ma woowoon ci mbétel damay dem.

le rôle boobu bi ma koy joué boobu yàgg Touti, tuuti Manko maa ngi ko joué woon d'ailleurs bon yàgg euh, j'ai après le rôle euh, les ma ci xawoon a métti ki ma ko doon joué rôle partenaire bi ma doon joué mom moom daf ma daf ma de trop parce que dit bi mooy xam nga sànq maa ngi la koy wax ne la dama complexé mais mom ni mu bëggoon agrippé au en moi ak ni mu ñu joué ko pour moi c'est c'est du cinéma alors que dama amoon nag problème ci tournage boobu dem naa ba tournage bi dañ ko mujj arrêté bon wax ma lu nekk. problème bàyyi sa yaram daal nga amoon. lii di xale di wax bàyyi sa yaram mais man man mënu ma bàyyee sama yaram parce que sama yaram bi laa mënta bàyyee ku nekk. loolu lan la woon ban pièce la woon nu mu tuddoon wax oh, ñu pièce bi nu mu tuddoon. <laughs> je me mets plus ah, comme comme comme comme da nga ko regretté bëggoo ko wax. sinon euh, ma ko doon jëndool yëpp ñu ngi fi bon gel bi ma ko doon jëndool tam mu ngi fi même moom quand elle a grandi après elle a elle may ree ci loolu ba léegi daf ma koy topp di ma ci ree complexe bi ma lay raay ngay daw dégg nga yooyu ma ne ko xaw ma raay dama ko xamul bon alors je veux pas ça bon peut-être quand on est tout seul peut-être mais ah, devant la chose là am ngay pas fii di def bon ça j'aimais pas du tout. Mm-hmm. Mm-hmm. d'accord euh, fan nga toll ci sa carrière tay oui euh, yang koy wax ça tout à l'heure parce que xam nga euh, dama dem ba après ministère de l'éducation nationale woma y jox ma programme dans les écoles parce que demone au Sénégal ba seetlu ne écoles yi Fosco bi mo bon c'est les foyers scolaires Fosco mais Fosco dafa nekk loo xam y a que du tchahan, il bi y a trop de folklore dans les FOSCO alors que nous révolutionner on en a discuté ñu jël un programme qui ça nous est parvenu de l'extérieur c'est-à-dire mettre un gouvernement scolaire alors que donc ci a dem Blaise Diagne Limondac, euh, dans toutes les écoles du Sénégal l'AIDEF, def euh, ko ba ci lycée Kermassar euh, et toutes les écoles de Kermassar. Euh, que je de encore tous les élèves les CLAPiens maa parce que c'est la ñëw dans les écoles de monter les gestes le gouvernement scolaire nga un président un premier ministre comme un gouvernement alors que pour faire comprendre aux jeunes ce qu'est et comment marche un gouvernement bon yooyu presque mom la def pendant 9 ans 10 ans yi passé ci loolu la nek parcourir les écoles monter les clubs les clubs les English club les clubs espagnols français tous les clubs de l'école club d'accord loolu moy projet bi nga nek ni mais kañ nga gëj jouer actuellement yaa ma téye mais je n'ai pas produit produits pour dem ni jouer ji était pas le rendez-vous d'aujourd'hui maa ngi génn ci télé yi wala non non non non télé la wara bàyyi xaal la waaw ci ci ci mm-hmm. neneen lañ mën a a gisee waxoon naa leen ko mm-hmm. mais du dinaa leen bett encore parce que fii may séentu ma fa ñëw ça c'est certain. questionnaire bi nag nga ko doon defee ak euh, succès boobu wala moment boobu nekk ko. si si si c'était difficile parce que euh, yaa am na benn jour le président du conseil régional de Dakar daf ma xool euh, dama romb di traverser jëm sama bureau mu ne mu ne secrétaire secrétaire ba ma interpellé ne ma non yow. Euh, président ne woon na boo ñëwee nga nuyu ko nga jaar bureau bon ma ñëw dugg bureau comme d'habitude mu reet ci sama yeeg man ne ma nag bon je te donné un congé tu vas congé un mois parce que service bi ñëpp a sonn pourquoi parce que ñi ne ci service bi ñooy dem seen kër ne leen Ibra ñoo bokk bureau léegi seen njaboot yi dañuy ñëw bureau léegi nag tout le temps les femmes njaboot yi tout le temps dañuy ñëw bureau bon c'était c'était c'est extraordinaire en tout cas vraiment te jàngal na ma ne sénégalais kun gënu ko xol le sénégalais mo gëna rafet xol ci aduna man ci ci période yooyu damay xol ba xamné ne man je suis bien né dans un dans un pays bo xamné ne ça me convient réellement être sénégalais dafa reuy ci aduna être sénégalais jarna lu ne ci aduna parce que leur cœur dafa reuy bon effectivement buñ la ne dara défaral na la dara yakal na la dara bon xamna ça va te marrer mais li ma yàqal mooy muntu ma woon def je dem fenn bon gel boo taxaw di wax ak moom sax bu ni. mais oui bien sûr. wax da gel bon écoutez <laughs> mais euh, ñooñu ma song parce que euh, du je comprenais une chose du lañ song euh, Mordien songuñu Mordien italien lañ song donc dama doon dama toujours la différence bëgg liñ mais pas mordien parce que xamuñu mordien vous l'avez dit tout à l'heure donc euh, yooyu yëpp day bon vous savez tu es aimé mais yaay bàyyi xel artiste bi mooy bàyyi xel xam ne ñii de dañ ma bëgg ngir lii bëgguñu ma ngir parce que da gis des femmes mariées des des des etc. cetera ñoom ñëpp dañ lay bëgg. amul amul amul parent bo xam dem nga séti domam di labat domam mu ne la mu ne doom ji ki ba ko trompeur c'était à c'était avec un ami tailleur euh, Omar d'ailleurs euh, elle était qui euh, elle était très bien elle était comme vous <laughs> alors bon may courtiser mais le jour que je suis allé pour pour qu'on passe maintenant à la chose mais papa ma monde bi non non non parce qu'il papa ak yaayam ñu ngi toog ne ma duñ la ko mës may et puis dañu bëgg mosuñu xam ne yéen a ngi génn mais Ibra kii dimbaliñu suñu doom bu jigéen bii lañ am te kii boo ko defee ni nga def ndey xadi ñun fii la ñuy jaar wuy ji borom bi bàyyil suñu doom ben dama fa yónnee waat naa fa dox ci ay dox ndeysaan sérieux taxaw fi ñu taxaw non non non j'ai jamais vu ça dem naa ba naan leen écouter ça ce n'est un film c'est un rôle c'est pas moi mais ils me disent que non de toute façon yow lii nga wane ci yow la nekk Bon, on ne peut pas te donner notre fille là. alors euh, ndeysaan noonu mariage bi amul ba tay mariage bi amul fi bobu tay la ko dama ko bëgg moom tam daf ma bëgg mais. <laughs> Ibra bi ñuy rey wala xam naa ni moom madame dina la ray <laughs> kooku tamit yaa ngi koy ko. <laughs> maa ngi koy tàggu bu baax elle est aux États-Unis actuellement bon on se parle c'était un secret bugguma woon madame yëg ni maak moom ñu ngi wax. légui am nga ki yëpp. mais ka bi légui day gérer ka bi. mais il y aura pas de mariage de toute façon entre man ak kooku parce que ses parents n'aiment pas ah. bon bëggante bi nak amna on vit. Euh, ñu ba tey amul jëkkër. Euh, ah non amul jëkkër ba légui. d'accord mhm. merci jëkkër merci.